société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may de presse tali na jàmm ñoo ànd xëy yër yéen ñu xëyanto yéen i kaay gi di réew mi ko di jenxëy di ñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature Macky Sall ba léegi pënd bi wureeku la njaaw ma ngi woy di dasu xam bi na professeur Babacar Gueye moom nag nee na Macky Sall ma ngi si ñaare la ma ak mujjëntalu mandat ma ndax référendum 2016 maanaam concerné wu limitation mandat waaye lu jëm ci mandat bi jële 2016 daal di waaye nag lu jëm ci kenn ku nekk ñaari mandat rek nga mën a def ci réewum Sénégal loolee moom référendum 2016 fi la ko fekk réglé woon nañ ko bu yàgg-yàgg ba tey ci biir journal bi moom professeur Babacar Gueye nee na ci atum 2019 balay élection yi di egsi Macky moom moo waxoon ne maa ngi ci sama benn mandat te bu ñu ma falee atum 2019 mooy nekk sama ñaar ak sama mujjantalu mandat te loolee lu leer la moom professeur Babacar Gueye ma ngi woon njiitu réew mi di président Macky Sall ngir nag mu daal di respecté kàddoom waaye nag li nga xam ne mooy constitution bi bañ a troisième mandat Assane Samb ci bi nee na atum muy président Macky di Ismaïla Madior Fall di maître Aïssata Tall Sall ñett ñi ñëpp ak ñeneen ñoo xam ne seen xel jëm ci wàllum yoon ñoom ñoo waxoon ne Macky Sall ma ngi te bu ñu ko falee 2019 mooy nekk ñaareelam ak njeexantalu mandat wax jooju nag wax ju leer la te nag la xam ne waxoon nañu ko ak li ñuy wax tey jii wuute na lool te droit lu la kàddu yu Assane Samb wax président Macky Sall bu ñu sukkandikoo rek ci constitution bi amul sañ-sañ présenté wu ci atum 2024 yéen kaay gi de la Tribune bàyyi mbir moomee wax ci lu jëm ci rapport Cour des comptes bi ak président Macky Sall la bëgg a ba làq ñi nga xam ne maanaam ay tojekat lañu ay tojemaan lañu maanaam ay sàcc lañu loolee ci la journal bi de la Tribune daal di dikka Amadou Ba jamono ji moom dafa gëmm bëtam noppi ci question d'actualité yi nga xam ne député Guy Marius Sagna ak Aminata Touré sàkku nañu ko yéen kaay gi de la sa nee na Aminata ak Guy Marius Sagna saisir nañu conseil constitutionnel ngir nag ñu daal di ci lu jëm ci rapport cour des comptes bii nga xam ne témoin nee na assemblée dañu seen noppi yéen kaay gi de Le Quotidien nee na en tout cas li am ba des daal Guy Marius Sagna ak ñoom la ñu bëgg daal mooy lu toll ci fukk ci ministre ñu yóbbu leen ca kanamu haute cour de justice ba ci biir journal bi de Le Quotidien ñu xëy fekk fa professeur Ismaïla Madior Fall ministre bi ñu dénk wàllum yoon moom na xamante ni ñoom la ñu joxar bi baaraamu tuuma ne ñoo dóor Amy Ndiaye ñii bi ba gaañ ko ca assemblée nationale démb la dogal bi wadd tëj nañ leen lu toll si juróom benn weeri kasu amande nañ leen lu toll ci juróomi million coup et blessure volontaire leen di toppee maanaam dóor nit ba ko ci loo tey seen avocat di maître Abdinar Ndiaye nee na nag mi ñoom duñu ko bàyyi mu sedd danañu def appel contre décision bi ginnaaw bu ñu defee timit ab appel moom maître Abdinar Ndiaye daat wax ne ñoom danañu demander ab contre expertise médicale ci lu jëm ci ëmb bu Amy Ndiaye ñiibi tamit ñoom dinañu sàkku li nga xam ne mooy ab liberté provisoire danañu ko introduire moo maître nee na Massata Samb ak Mamadou Niang ba léegi ay député lañu ndax mbir mi xaajugul bay jeexa yéen kaay gi de la témoin nee na démb xale yi ca na dañoo mer ba futu tàngal nañu mbedd yi ba seen xol sedd yéen kaay gi di bés bi nee na ñaari député yi soo moytuwulee ñàkk seen mandat ci la ñu jëm yéen kaay gi de la témoin nee na journaliste Pape Alé Niang jamono ji wàllu wér-gi-yaramam sooxe na loola ñi nga xam ne ñooy tas ko xabaar yi ñoo ngi waajal ay mobilisation journal bi enquête nee na Pape Alé Niang ma nga Sonko nee na journaliste Pape Alé Niang démb dafa amee woon malaise ba 16 jotee te nag lépp loo ne dal na Pape Alé Niang Macky mooy responsable bi te nag maa ngi woote am mobilisation kàddu yi Ousmane Sonko la maître Ciré Clédor Ly moom nag jamono ji nee na Pape Alé Niang na lool yéen kay gi délibération nee na avocat yi Ousmane Sonko yi déposé nañ seen requête ñoom li sa sàkku mooy ab noolee ci mbir mi yéen kay gi de Les Échos Sonko yi def